njabootu sëriñ am sëtu gépp ñu ngi nii tey ñee ngi ci biir ñee ngi ci bitti di yëgal ne ñoom ndey jaayante ga xam ne moom la seen maam mu das sa jaayante woon sëriñ Touba jëbal ko jabootam gépp loole moom la ñuy xeeñ ci sa sa jëmm ji ci anam googu waaye ci anam yu baree bare ndax na nga demee ci ñoom ak ni nga demee ci yow ñu ngi feddali loola bu baax a baax di jaayante seeg yow di la xamal ne bëgg nañ nga nangul leen dugal leen ci jaayante googee sëriñ mu tax sa jaayante woon ak sëriñ Touba sëriñ am sa tookee rakkam ñam ko bokkal ñëpp doon xenc loolu ba agsi ci seen jëmm yi tey njaboot gi kenn desul ñëpp ku fay dib taalibe maa nga dib sët takk na leen def ko wenn say jëbbal ko sa jëmm ji di la xamal ne ñoom day buñ amoon ku ñu yemalub att ci yoonu murit Ousmane Gabang bañ daggaloonu tikke yónnee ko sëriñ Touba mu jëyee Gabang di ñëw ba agsi fii ñu dugal ko saxaar mu ñëw ba njaareem nee na bu doon am ku ñuy nattangool ci yoon wi nee na nattangoog Ousmane Gabang boobee la ñuy doon ñi ngi lay ñaanal na ci barki sëñ Tuba barki Cheikh Amsatou moom mu nga xam ne lu am sëñ Tuba ko may yàlla yàggal jataay bi lool te wéral la lool ndam yi nga bëgg a li nga bëgg a liggéeyal sa maam ju tedd ja ak sa waajur yi tedd ja lépp nga def ko na nga ko bëgg te nga ànd ko ak ñoom te ànd ko bokk seen xol seet doon na guy démb seen xol seet daan na tey jii ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax Mbàkke Balla loolu la ma sëriñ Muntaxa yónni woon ci turam ak ci turu Aas ak turu sëriñ Xaarim ak njaboot gi ñu Muntaxa sëriñ bi nee na mi ngi delloo yoonam gën a rafete nee na dégg na kàddu yi Sëriñ Abdu Lahat yi waaye nee na lu xelam gënoon a dal naa dalaat lu njortoom gënoon a rafet gën naa rafetaat ci jotaay bi xam na ni kàddu yi Sëriñ Abdu Lahat wax lu wér la lu leer nañ la diggante Sëriñ Madu Asta tawfeex jam amoon ci Sëriñ Tuuba ak jaayanteem googee ak dëggalam googee soob léppam ci sëriñ bi daru naam mës ta génn sëriñ bi boobaak léegi lépp luy mbirum sëriñ bi itam la koy doxal di ko leeral dara sëñ mu daas dana dugg ci biir loola amin